yàgg di gën a unité ci société bi rek ñu fi tàgg jamono dox ko nañu màgg bu mu jàng dàgg doomu baa doonu nee na dañoo sonn ci bëj bu mbàgg encaissé a de ku gal gal ñooy dem dugg ci gaal yi lekk yàbboo yéen gën ñu mag te ñu ñooy xëcc mbaal bi bu jeexee jeex na amandoo rek wala ñàkkandoo foog exécutif xam ne pouvoir bi ci bopp du màggandoo baa doola xamul yee la déglul tuuti yee la fi ne du fi gàntoon te jàmm dañu koy xeex mandee sàmm su ngeen ful woon kàmm indi lañu jàmm ñaanu ñu jekk si li ñu moom daj ngeen li làmb bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na suñu jàmm dañ ko war bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na fii kii dañ ko war a tànn. yeah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitro di leen bëggee bu wér waaye kontaan ci yéen comme nuñ koy defee saa su ne autorité yi am nañ ay géwél mooy ñi leen di tàggal seen baaxu maam ñi tagg seeni baaxu maam bay jooy ak pàccal yi rongoñ waaye baadoola yéen it weetu leen am ngeen ay représentant am ngeen ay géwél comme sama genre gii nga xam ni mi ngi nekk ci saa su ne di fomp seen rongoñ mu jaral ma sax tey la sama bakkan parce que ñi may waxal faalewuma leen ragaluma leen it du saayir du baatin ndax amuñu ci benn amuñu benn pouvoir yàlla mayu leen ko te bés boo ko gëstoo xam ni yàlla mayu leen benn pouvoir amuñu saayir amuñu baatin ñépp ñu ma fi attaqué du nguur gi du ñu leen di jàppale donc di leen xamal ni bu leen ñee kenn yéen baadoolo yi bu leen ñee kenn yéen pauvre sénégalais bi nga xam ni sa àq ak sa yelleef dañ ko salfaañe jaay la doole jàppal ni xawma kandey waaye Mollah moom saa su ne dina nekk sa wet di faj say blessure di bokk ak yow naqar di bokk ak yow lépp la la metti boo amee bànneex demal waaye boo amee naqar ñëwul wax ko mu tay la ci bakkanam joxe ci dundam mu jaral ko lu ne ngir nga am sa jàmm ak sa salaam loolu day moo nekk samay tànk te ci loolu laa mus sa dox loolu it moo waral may song ñoo xam ni des fois gars yi foog ne ay yàlla lañ fekk ci kanamu yàlla matuñu fa sax melentaan sax moo leen ëpp ja foofu moo tax it da gis boo leen songee dara lu dul jàmm ak salaam nga ci am ci saayar ak ci baatin ak yokkute nag ndax la ñu doomu aadama yi di ragal a joxañ di leen ragal a wax loolu nga leen di joxañ wax leen ko te mujj fenn jàmm ak salaam ngay am ak mucc ak xewal gudd fan ak wér di la sàmmal boppam ndax ñañu bu ñu ñëpp bàyyee baadoola ya di leen ragal a représenté wala am duñ leen sax xeexal yow boobu bàyyi nga lépp pour xeexal leen te baadoola moom dafa naqaree xeexal lu tax parce que yorut lum la jox waaye aka neex ndax fa yàllaahu da ngay bëgg man moo tax may ma tàmm di xeexal yore kàddu baadoola yi di tagg baadoola yi lépp lu leen metti rek ma jóg di xeex pour ñoom voilà loolu mbégte googu noonu dafa foor ci man moo tax ma doon géwélu baadoola yi waaw ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy innocent yi ñoom lañuy rey waaye bu ñu demee ci kër diine ya au lieu ñu wax ci ñoom ñoom la ñuy ŋaññi ñoom ñooy deele mais ñoom la ñuy ŋaññi ñoom ndax ñaleen rey dañuy ñëw garam bu buy rëy toog uufu bóof ñi leen di tagg sol yu weex yu rëy ñi leen di tagg seen i baaxu maam te ñu nekk ay assassin te ñuy tagg seen baaxu maam xam ni ñii ay assassin lañ xam ni ñii ñoo fi jël ay nervi ñoo fi recruter ay nervi yuy tiire xale ya xam ni ñii ñoo jël quarante cinq milliards en armement jox ko ay nervi jox leen ay 4-4 ñuy tiire xale yi waaye duñ dañuy wax ne non xale yi nañ bàyyi di génn nañ bàyyi xale yi génn jël jël mbedd mi def ko benn lii de mouroir maanaam xale bu génn rek dafa war a dee xale bu génn di wax metti itam dafa war a dee dañ ko war a rey mais ki koy rey kenn du ko jàpp kenn du ko xas kenn du ko wax dara mais ki ñu rey kooku la ñuy wax ni moo ñàkk ne bu leen génn baax boo leen génnee dañ leen di rey yéen it dofu leen jënd jàpp leen am ngeen xel gis ngeen kenn gënu leen ci ndey gënu leen ci bàyyi boo leen nocc boo leen nangoo doon xaj rek yàlla def leen xaj waaye yàlla daf leen def ni yéen a gën ci lu mu bind kon gis nga bind googu mu la def ci yow noonu ba def la ko ba nga mel ko kon sàmm ko nit nag yàlla dina ko def mu gën ci lu mu bind nit kooku di xaje xaje ba gën a xaj sax gën ko daraja nit dina nekk ci suuf yàlla def ko lim ko def muy lu gëm boppam ba doon jël place bi ko yàlla jox amul place bu gën a rëy nit nit tamit amul benn nit bu gën nit fii ci kaw suuf gënante gi yépp ci liggéey la fa yàllaahu jëmale ca yàlla kon góorgóorlu leen ci seen diine góor leen ci seen set góor leen ci seen sellal góorgóorlu leen ci bëgg suñu borom subhaanahu wa taala góorgóorlu leen ci doyloo suñu borom waaye góorgóorlu leen ci kennal suñu borom bu leen ko ñaar bu leen ko ñetteel boo leen ko defee am jàmm am ndam lu leen waaye teg sax foog ni mu ngi leen di toroxal ngeen ci sant yàlla di ci jaamu suñu borom loolu dimension boobu la Ousmane ko toll. parce que kaso googu noonu malgré que métti na et tout mais boo ko fa fekkee lu mu lay wax mooy dama ciy jaamu suñu borom dama ciy jaamu lii nii danga ciy jaamu suñu borom nga xam ni kooku gis nga niveau nu mu toll day mel ni ñoom Serigne Touba ki nga xam ni bañ ko yóbbee guddi Ndakaaru ya fanu Ndakaaru ya buñ ko boole koo koy gaynde yëpp mais moom ràbb baag lépp lu luñ ca wax rek moom da koo sante suñu borom sumaanoo taalaa moo tax yàlla yokk koy daraja mooy lal gële ngeen gis Ousmane ko tëdd fa muy lalu hôpital ba ca kaso ba ca kaso la parce que ñu ngi koy garde gis ngeen foofu boole leen ko fa fekkee xam lu muy wax nee na mi ngi sant suñu borom ci li ko yàlla teg mi ngi sant suñu borom ci lii ñu ko teg nee na mi ngi ciy jaamu yàlla nee na moo nee na mi ngi ciy jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taal kooku dimension bu kawe la yor dimension bu kawe au moment où Macky sàll assassin bi rey nit yi ma nga wër ca kër diine ya toog njaax ñii di pàccali bët ñii di jooy ñii ñii di yërëmtalu ñii di yuuxu ñii ñii jël Amadou Ba bu mu àndal ku ñoom ñëpp validel nañ euh, Amadou Ba <laughs> euh, euh, candidat candidat tiiram bane dañ koy jàppale ñoom ñëpp ndeysaan koo xam ni ñoom amuñ sax baatin gisuñu sax yàlla yàlla lu mu wax bu ñu amul nit ki boo amee baatin dëgg dëgg dëgg sax da ngay gis mais ñoom ñëpp a validé candidature Amadou Ba ñoom ñëpp fépp fu mu dem ña ngay validé rek de fa mu fu mu jaar rek sëriñee validé mu continuer ñu wéy di validé assassin ya reykatu nit ya ñu jël 45 milliards def ko Amadou Ba moom ma ngay campagne ca kër diine fu mu romb rek ñu validé na est-ce que akasa aca yoxal yow la <laughs> <laughs> waaye nag dama ne sénégalais yeewu nañ benn xeetu yeewu boo xam ni fanatisme moo amatu kenn toppul benn sëriñ mu def lay xaj kenn toppul benn sëriñ mu ne la xoolal fii xoolal faa <laughs> déedéet kooku mu yi defatuñ ko gars ko déedéet gars yi yooyu moom c'est dépassé fanatisme yooyu noonu noo ñun ñëpp gëm sëriñ ñun ñëpp bokk ci tarixa mais dama ne man kenn du ma takkaloo ay njëll njëlu politicien na ma doxalal fii wala xooleel fii <laughs> xanaa man sama baay baaxul wala sama yaay hmm? maa ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala di gërëm yàlla di leen wax ni yéen sénégalais ñoom bu ñuy def seeni pexe yéen it ne chaque jour lu ma leen di wax mooy ngeen taxaw lu la bett mën la te situation yi lépp waxoon nañ ko ñun duñ sëriñ de luñ sëriñ de amul situation wi lu sénégalais di dund loo xam ne waxuma leen ko sincèrement lii lépp waxoon naa leen ko Macky Sall bu demul Ousmane Sonko du dem Macky Sall bu demee mun na nangu Ousmane Sonko dem waaye Macky Sall bu demut Ousmane Sonko du dem Macky Sall boo deful ndànk élection yi Ousmane ci kaso bi la koy fekk loolu bu ma koy wax yàgg naa ndeysaan yàgg naa moo tax tey bu ma gisee yenn ñoo xam ne nee nañ dañuy gis ñu toog naan ay Ousmane Sonko waxoon naa ne day dugg ci kaso bi ñun bu ñuy wax yooyu ñun ñoom ñu ngi ñuy seetaan. man bu bu ñuy wax loolu ñi ngi seetaan ba may def affaire Adji Sarr Ousmane Sonko doon dugal père père lan la leen waxoon ne sa waa ji la waxoon de vidéo baa ne sa waa ji moo la sa waa ji élection bii du bokk xanaa beneen mais bii moom du bokk moom loolu jamono Adji Sarr Ousmane Sonko doon deux mille vingt et mu ne sa waa ji du bokk de bii déedéet gars yi pare nañ li ñuy def ma ne ko ah mu ne ma pare nañ li ñuy def de bii moom du bokk moom xanaa deux mille deux mille euh, vingt neuf la waxoon sax deux mille vingt neuf kar lañ ko deux mille ma ne déedéet xanaa loolu mënul nekk mais ni ñuy gën di demee rek affaire bi di gën a leer ni gars yi ñoom nee nañ Sonko du bokk Sonko du dem Sonko di nangam nangam nangam di expliquer léegi nag mooy li ma waxoon léegi léegi benn membre Pastef sànq bu ñuy waxtaan euh, ma ne ko ndeysaan Sonko wéetal na fi. kër diine yi ay nitu sonk sax dematuñ fa ndeysaan mais jamono jii bu fi sonko newoon heure bi mi ngi doxantu kër diine yi man leen lan moo tax sonko dafa mel ne amuluy ginnaaw lan moo tax ay nitu sonko yi nga xam ne sonko may na leen lu ne defal na leen lu ne lu ñu doon sonk la bu ñu leen xamee sax sonk la lu tax mënuñ mat sax ñett ñoom tam di dem ci kër diine yi di représenté foofu Ousmane Sonko au nom de Ousmane Sonko taxawee fa au nom de Ousmane Sonko Ousmane Sonko deewul mais lan moo tax kii di. El kii di meeru euh, kii ba lu mu tudd euh, meeru euh, Thiès ba kii di Abbas Fall lu tax ñoom ñett ñooñu mënuñu booloo ñoom moom mënuñu booloo di dem di dox di dox ci comme nu ko ñi ñii di defee politiciens yi di defee parce que gis nga naa la waxal yi gëmuñu diine de dañoo dem kër diine yi pour politique yi affaire politique la dem kër diine yi di politique yi yow tam nga dajale jo kii boole ak Abbas boole ak ki nekk Thiès ñu booloo dem kër diine yi ñoom tamit représenté fa Ousmane Sonko di wax o nom de Ousmane Sonko parce que gars yi dañuy politique ñoom ñëppay politique nga toog nga def ni ñoom ngeen ngeen ànd yéen ñett ñu dem kenn terewu leen ko ñu dem poli dem politique yi def comme gars yi dem kër diine yi politique parce que foofu diine politique yoo fa am diine amu fa diine amu fa da ngay gis ñu dajaloo ne euh, ne gàmmu gàmmu lan la fêter l'anniversaire du prophète waaye dañuy seet fêter l'anniversaire du prophète waaye gars yi politique lañ fay wax ak seen maam <laughs> prophète bi doo ko fa gis doo ko fa dégg gars yi gàmmu gi ñi ngay dégg nii non dañuy dañuy sàkkatoo prophète bi rek li lijjantiwuñ ko sax seen maam lañ fay toogee seen maam dañoo utiliser événement wu jàmbur di fa feetee seen maam ñoom ku nekk sa maam ngay wax sama maam lii sama maam laa tey nee nañ dañuy feetal le prophète sallallahu alayhi wa waaye boo demee ci seen tante ya prophète ba newu fa seen maam lañuy wax ñun yooyu ñun xam nañ ci dara dofuñu jinne jàppuñu seen maam yi rek lañ fay wax ñoom seen doolee maam seen kattanu maam lan la seen maam def mais eh, prophète ba moom newu fa boobu voilà donc lan moo tax ay biram suley ak ki nga xam ni euh, moom mooy ñeneen ñi Euh, El Malick ak yooyu ñu dem ñu dem dañuy politique it's all about politique eh it's politique dañuy politique ña fay dem dañuy politique yow tam nga dajale politique bul dof dof lu de bul bul gis nga ay politique Sénégal amul conviction de conviction bi taxaw gu fa de ñëwagul tabaxuñ si politique ba mu am conviction politique amul conviction amagul conviction Sénégal te ku ñëw da gis les réalités de la politique sénégalaise Ousmane Sonko bu mu ñëwee la a été très radical mais bu mu gisee la situation am dañoo mujjee def Pastef dafa dem dugg ci ci benn coalition. coalition boobu am na ay caïman yu fa nekkoon te gis nga wane nañ seen bopp ay ñoom xalifa Sall après wane nañ seen bopp c'est des produits purs produits de de du système. te pourtant kiy xeex système bi dem na ba xam ni il faut récupérer les déchets du système pour recycler ko liggéey ak ñoom pour mën leen ci génn et pourtant il a la la réalité. mais bu muy jóg il a été radical daf na man def ci un anti système mais bu mu ñëwee gis ni système bi c' est très ficelé et c' est très huilé il a très bien compris il faut ma jël ci système bi recycler ko travailler waat ko xool nu ma def. moo tax mu dugg ci foo xam ni ay produit système bi ñoo fa ne parce que c' est de la politique il faut le comprendre da ngay da nga koy respecté parce que c' est de la politique mënul def neneen radicalisation boobu mu doon bëgg indi bu ko defoon cent ans du ci parce que dafa am des réalités politique yoo xam ni da nga koy utiliser à de bon escient pour liggéey ci il faut être intelligent là dans la vie donc moom il a Ousmane Sonko a été très intelligent dafay toog ci système bi xool nu muy récupérer système bi di liggéey ñoom comprendre pirater seen cerveau xam ñii nan la ñuy doxee nan la ñuy waxee Habib Sy c'est un pur produit du système ci Ablaye Wade la nekkoon nekk na fa ministre jëfandikoo fa na def na fa lu ne am na fa lu lu mu am ci Ablaye Wade la ko amee Aïda Mbodj mu am ci p la ko amee ba pare mu continuer dem PDS Aïda Mbodj PS la woon martalu dugg PDS lu mu fa am fa la ko amee Khalifa Sall PS la c'est des purs produits du système système bi moo leen jur ci système lañ xam xamuñu leneen Et pourtant, Sonko a été très intelligent de travailler avec eux pour mu leen infiltrer dama ne même jën boo ko buggee napp da ngay dem ci géej ga da dem ci géej ga sawaay boo duggee ci politique da ngay xam ne ci politique nga dugg ñoom dañuy dem kër diine yi di politique mais doo tam doo fa bàyyi la nature a horreur du vide da ngay dem fu ñuy dem di toog fu ñuy toog ñuy wax li ñuy wax ngay wax lu ngay wax boobaa sax da ngay mettre sëriñ bi ci ci dilemme du xam sax fu muy far parce que sëriñ bi day ñëw ñi jël ko mu ne Macky Sall sama maam bu mu defee lii nga def lii ñu kii pàccali bët jooy nga ñëw topp ne ko ah, sëñ bi maa ngi nii rek man de Sonko ma yónni woon nee na mi ngi leen sant di leen gërëm ba xam lan lay wax bu boobaa dañuy gis exactement ki naafeq la wala fii la far wala fee la far parce que ñii ñëw na mu wax lii ñee ñëw na mu wax lii kii kenn xamul fu mu far mais la nature a horreur du bu dee waa ji rek moom moo fay nekk di exploiter les espaces di exploiter euh, euh, créneaux yi di exploiter temps de parole bi di exploiter lépp bu boobaa dangay ngay da bàyyi foofu noonu de <laughs> il gagne du terrain bu dee ñaari nit il gagne du terrain mais da ngay ñëw taxaw contre ko opposition boo gis pouvoir day am opposition mais boo ko bàyyee mu mu gagne terrain bi c'est ça <laughs> loolu xam-xam moo koy def mais eh, doo toog fu nga toog rek non non je suis radical non wan non mais yaa ñàkk yow yaa ñàkk on les a trop laissé du terrain ñoom ñooy ñoom ñooy doxantu ñoom ñooy def ay cortège ñoom ñooy wër biir Sénégal ñoom ñooy taxawaalu ñoom ñooy wër kër diine yi yéen lépp lañ leen tere la population lépp mënuñu marche mënuñu rassemblé wu mënuñu def manifestation mënuñu génn mënuñu def cortège mënuñu def dara mais bu dee lool sax nga am xalaat ne xaaral ma jël kii ak kii ak kii kii ñu yónni leen ñu dem kër diine yi ñoom tam toog représenté fa Ousmane Sonko ndax bu fi Ousmane Sonko newoon da koy def Ousmane Sonko heure bii bu ko fi fekkoon daaw heure bi bu fi fekkee dem na ci kër diine yi bu ñuy waajal bu ñuy waajal euh, gàmmu gi <laughs> alors pourquoi pas ay représentants yi nga xam ne moo leen defal lépp lu ñu am moo leen ko may lu ñu am ci àdduna rek wala ñu xam leen c'est grâce à Ousmane Sonko ñu dem rendre ko euh, laa mu ne soxlawul sax sëriñ bi Ousmane Sonko naan leen dem leen fii dem leen fa mais Ousmane Sonko ginnaaw dafa mel ni désert comme désert au moment où gars yi ñoom ñu ngi teg seen procédé mais ay nit Ousmane Sonko ñoom dañuy yeewu ne la focus focus ci lan focus ci lan waxal nit yi wax day yegg yeewu rek ne la focus focus kan focus fan focus ci lan focus fan looy waajal wax ñu focus lan mel ni ñuy wax ay xale ti nous même pas génn as hey les gars hey ñëpp taxaw nalawuñu gëmmuñu ñii seen waxi dof yi ñun faalewuñ ko pare leen dañuy focus dañuy jëm ci lii lañ jublu fu ñu jublu lii dañ il faut communiquer avec les gens ci lii la jublu te dara duñu téye te dara duñu arrêté on se on faale luy dox li ñuy wax mooy lii nañ sëgg ci lii nañ ci nekk wax ak sénégalais yi y' plus de communication ndeysaan même page Ousmane Sonko kenn bindatu fa kenn waxatu fa ndeysaan non mais mais mais xanaa ñëpp a dee mais lan moo tax page Ousmane Sonko ay nitu war a ñu ñi nga xam ne ne nañ ñoo yor projet bi mënuñu wax ak askan wi caa man booy bu ma ne woon Pastef wax naa leneen page ba laay récupérer dem jox ko benn ngañ dem ba Touré mu fay live wala ma dem jox ko xoolal gars yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir parti bi war nañ fa mun di wax ku leen ko tere page boo xam ne am na un million de dëkk yi ngañ dem ba Touré ñu jox ko fa mu fay live Sénégal yëpp di ko dégg ñu jox ko beneen El Malick bu ñëw taxaw live fa Sénégal yi déglu mu am benn continuité benn perpétuité boo xam ne continuité ci liggéey bi nit yi seetaan di seetaan di dégg di xam di continuité mais waru am break am break nit yi dañoo waroon di dem ci biir page boobu di fa wax mais dafa calme c'est très calme dañ ne affaire bi idéologie la weesu na doon nit ay pensée la bu nit ki ñu jàpp leader ba mais am na ñeneen ñu fa mun a taxaw di waxaat contre la rek nit yi mun nañ fa dugg di wax ay nit yoo xam ni yu yu yu am continuité ci waxu Ousmane Sonko mooy lu ma leen wax gis nga sénégalais yi déglu leen baax li ma leen di wax li nga sénégalais yi man lu ma seq ñoom mooy dëkk wax dëgg doonte dañ may rey gis nga ku leen wax ne waajalu leen waajal leen da leen di nax barke alxuraan man gis naa gars yi ni ñu leen di nalaw looyee nii dafa ma affaire bi dafa ma metti ah gars yi focus rek focus leen non focus non incha allah non focus parrainage focus para kii nangam mais focus bi dafay commencer changer focus bi mooy Ousmane Sonko candidat la ok comme ni ñu ko waxee Pastef musul dem ci élection ay mouvance la dajale wala benn coalition la ñuy dajale ko Sonko 2024 wala Sonko nangam loolu nice mais. le tout et tout et tout mooy Sonko dafa war a dem ci élection yi wala focus boobu dafa bàyyeeku man te yéen may wax de dama bëgg a xam rek ba xam focus Ousmane Sonko day dem ci élection yi dafa commencé di dañ noonu day mel ni ñoom dañoo commencé am raison dama doon wax ak léegi benn waa ji nekk Pastef benn ci leader yi ba mu ko waxee loolu sax maa nga noon di dem Tiwaawoon maa nga noonu di dem Tiwaawoon ma ne ko bu la nature a horreur du vide dem leen ngeen récupérer espace yi il faut récupérer les espaces ne restez pas muet ma nga noonu di dem Tiwaawoon euh, bu muy dugg sax Macky Sall mi ngi génn voilà bu muy dugg Macky Sall mi ngi génn maa ngi gis cortège mu defal ma vidéo cortège Macky Sall bi boobu mi ngi génn Tiwaawoon moom mi ngi dem ma nga dugg ci. parce que dama ne ko bu leen toog dem leen génn récupérer l' espace parler au nom de Ousmane Sonko montrer que Ousmane Sonko n' est pas mort Ousmane Sonko est en vie bu leen nalaw ba bàyyi Ousmane Sonko mu nekk en veille mu nekk na lumière bi di tàkk na lumière bi di tàkk na lumière bi di tàkk bu leen wane ni lampe bi dafa nekk en veille si stratégie dafa am solo xanaa xamoo tey bu ñu yeewoon rek gis benn ñoom Macky Sall yeew rek ñu gis benn euh, Abbas Abbas Fall gis benn El Malick gis benn biram Souley rek ñu taxaw ni génn rek yor seen i classeur génn mel ni ku newoon réunion tak internet bi duggal bum bum bum bum état bi day taxawaat ni eh kon ñii ñi ngi dajaloo ñi ngi réunion ñi qu'est-ce lu ñuy réunion gars gars yi il faut da am stratégie da mun a yëngal buur buur doo ko may mu toog ci lalam toog ci seesam ci jàmm da nga koy yëngal ci ay stratégie comme gis nañu ñetti ñooñu pour ñu dajaloo sax def benn photo wala def benn réunion wala def benn assemblée wala def benn conférence de presse sax c'est nga xalaat ne xaaral damay jël ñett ñii dajale leen ci benn photo ñu génn fenn yor seen classeur def nii mel ni ñu demoon ci benn réunion wala benn assemblée dañu doon waxtaan stratégie mais loolu day tax gouvernement bi jógaat eh lijjanti leen gars yi de eh, ñi ngay dajaloo nag gis ngeen ne fekk xool loolu rek yëngal nga république bi te yënguwoo yëngal nga république bi tere nga leen nelaw ña ngay wër di xool ñii fu ñu dajalooyee nan lañ def ba waxtaan ah xanaa sañ service secret yi waxuñu ñu ko lu tax lijjanti wu ñett ñi nan lañ def ba dajaloo nañ leen nanga fekk yaa ngi lijjanti seen maay yaa ngi basculer si seeni xel loolu lépp c'est des stratégies yoo da leen di tere nelaw ñoom parce que ñu <laughs> ñii ñi ngi dajaloo xan kenn tere wu fi dajaloo ñii ñi ngi dajaloo ñii ñi ngi waxtaan kon ñii bàyyiwuñu kon ñii lu ñu wax yëpp ñoom faalewuñu yoon ñi ngi ñi ngi continuer seen affaire yi ñuy def non dañ leen di tere sax nalaw tout ça benn stratégie rek laa wax c'est des yoo xam ni très politique de communication de manipulation de travail psychologique boo xam ne mun nga lijjanti waa ji di ko teree nalaw te doo bouger fi nga taxaw mais il faut savoir faire la politique politique xel moo koy def xel c'est des stratégies au moom laa def titre bi la force de la loi et la loi de la force moom laa doon wax lu tax ma def ko léegi benn leader nee naa leen benn leader Pastef fu ma doon waxal ko ma yónnee ko gars yi kii bu ñu de euh, euh, affaire lettre bu ñu bind jox ko Sonko signification euh, pour pour pour wax ni éligible lul quoi tampon beeg yooyu ma yónnee ko ko ne ko gis nga gars moo nekk nii bu ñu ñoom signé tout pour ne Sonko du bokk ci élection yi dindi nañ ko ci list bi moo nekk ni ñoom ñoo ko génne quoi voilà 2023 19 septembre 2023 à la requête de la sous-préfecture des Almadies en ses bureaux à Dakar poursuite et diligente de son représentant légal donc euh, ici ñu jël seen huissier ñu constaté wax ne signifie en tête des présents remis et laisse copie monsieur Ousmane Sonko demeurant à Dakar euh, R17 rue Le Potet à la cité Kër Gorgui Mermoz Dakar où euh, étant et parlant à blablabla bla, bla, bla, une lettre de la sous-préfecture des Almadies dont la teneur la suivante numéro tac tac tac tac Dakar etc notification des retraits sur les listes électorales référence lettre numéro euh, 06 20 PD Dakar 2 août 2023 par, par la présence, l'administration vous informe M. Ousmane Zonko, né la 15-7-74 à Thiès, de votre retrait des listes électorales suite à une con condamnation par contimence euh, par la Cour, euh, par la chambre criminelle du tribunal danga blablabla door seen signature ak lépp léegi gouvernement bi moo def lii donc xam nga ñoom ñu ngi seen processus de liquidation et d'élimination de Ousmane Sonko parce que ñoom nee nañ génne nañ ko ci liste électorale ñoom loolu lañ jàpp ok léegi ma yónnee ko leader bi mun ne ma waay Mollah euh, euh, euh, gars yi mun loolu ma ne ko mu ne ma non non parce que lu xam nga lu tax ah c'est que gars yi bu ñu signé compte max bi bu ñu kii compte max bi après mu décaissement ah, man leen man leen mais mais man xam lan laa comprendre kon yéen yéen a ngi fi ba léegi ci ay droit ak ay loi yéen di ngeen di caaxaan sama gars yi jóg leen jóg leen waajal seen bopp te ngeen bàyyi waxi loi ak règlement Macky Sall moom moom loi bi Sénégal amul loi Macky Sall moom moom justice bi Sénégal amul justice Macky Sall moom moom bi Sénégal amul règlement jóg leen jóg leen waajal seen bopp te may ñu jàmm ci ay décaissement signature décaissement signature loi signature règlement signature xawma la nag la arrêté leen kañ ngeen nekk nit yéen kañ ngeen di nekk nit depuis ban 1900 ban nit lañ fi jàppagum ci corruption de jeunesse ban loi la Sénégal mi ngi toog am bu nit yi dundoo ba léegi Sénégal ñëpp jaar adduna bi ñu fi jaar ñëpp Sonko moo mus moom lañ mus a teg luñ mus a teg kenn mooy corruption de jeunesse ak ban loi la waa ji na ma tekk di déglu ma ne ko ngeen toog ba léegi dama wax waxu loi te ñu jàpp Sonko teg ko ci kaso ndax ay sàcc Sonko dina sàcc mu ne ma déedéet du sàcc kay mu ne ko lu tax ñu jiñ ko sàcc vol de portable yow sax doo sàcc mu ne ma déedéet ma ne ko ban loi moo wax ay waxu sàcc ko day sàcc te mi ngi ci kaso bi ci waxu sàcc ngeen bëgg a wax ak ñële ci ay waxu loi arrêté leen seen waxu loi yi doo leen nit Macky Sall boobu ba léegi mi ngi lekk seen tànk yi bay yegg si seen biir yi ngeen war a jóg waajal seen bopp ngeen taxaw dañu wax waxu bu loo amoon Sénégal dinañ tëj Sonko ci ay caso ci ay ay corruption de jeunesse kan lañ fi mus a diñ corruption de jeunesse jàpp la te mu ngi ci kaso bi ndax ay corruption de jeunesse mi ngi ci kaso bi ndax ay vol de portable kañ la Ousmane Sonko nekk voleur kon xam ngeen ne loi amu fi kan mooy teg procureur mu ne ma Macky Sall kan mooy teg euh, euh, doyen des juges euh, Macky Sall kan moo fiy teg kan magistrature bu ñu choisir kan kan la mu ne Macky Sall ma ne ko conseil constitutionnel ñi fay wax naan ñii ñooy dem ñii ñoo dul dem kan moo leen fa teg ñoom ak sax ngeen ngeen ngeen bëgg ñu raay ay loi ak ay règlement ak ay justice arrêté leen fu nekk nii xeex bi moo am les gens de ousman Sonko appellent à la loi les forces de la loi ou bien la force de la loi au moment où Macky moom la loi de la force lay incarné ma ne ko waa Ousmane Sonko ñu ngi ubbi article ya di lire rek di lire Macky Sall moom li jëntuwul article ya ñoom ña ngay nekk foofu force loi koo ci waxal mu génne loi 45 36 no kii compte max bu ñu ko kiiyee décaissement Macky Sall naan leen hey ñii il parle de force de la loi man laa force la la loi de la de la force laa leen di woon ma ne ko nag mun na dëpp mu ne ma nan la ma ne ko bu fekkee ni sénégalais yi ñoo jël li Macky Sall ñu jógee bàyyi ay waxul loi jóg taxaw waajal seen bopp ci xare ci combat final boobaa ñoom ñooy gérer la force euh, euh, la la loi de la force le peuple mooy mujjee yor la loi de la force Macky Sall dem répliquer wu ci loi yi di wax ay force de la loi déglu leen bu baax samay euh, développement dafa am force de la loi ak la loi de la force la loi de la force mooy jaay doole force de la loi mooy appelé à aux lois jamono ji waa Ousmane Sonko ñoo nekk di wax waxu loi loi boo xam ni moomuñu ko tëgguñu ko lépp ci Macky Sall lay doxee ñoo fi nekk di wax waxu loi di wax waxu décaissement encaissement signature ci max di wax waxi dof au moment où ministre de la jeunesse génn na leen na leen ay amul compte max ak bunte max ñu ne ko lan la mu ne condamnation bi et définitive doo dootuma ci dellu waa élément yi Ousmane Sonko bugg ñu rey compte max ak dayu max ak bunu max ak doxuti max te seen ministre la justice na hey compte max ak tuunu max laa yemale ak doxutu max dama ne la condamnation est définitive te du ma ci dellu dem dem doxi soxlaam nga toogaat foofu naan lawaa bi konti max dayu max bunu max ay bunu max pro wala doxute max pro am na ngeen jóg waajal seen bopp waaye yëfu tàppet nit yi dañu tayle seen bakkan tayle seen dund tayle seen liberté tayle seen dem ak dëkk ngeen taxaw foofu ne di wax ay waxu konti max ak ay loi ay décaissement ay encaissement bu la ñu fontoo boo leen ragale ngeen wax ñu ñu lem liggéey bi tam taxawee ne le boo leen ko ñëwee ngeen taxaw jëmal seen bopp te xam ne ci xeex lañ jëm du compte max ak bunu max moo leen ci génne yenn yi ay yuuxu ragal la ñëpp xam nañ ni amuñu benn loi pour arrêter Ousmane Sonko doole la ñuy jaay loolu la ñu force de la la loi de la force loolu la ñuy incarné jamono ji mais bu peuple bi yeewoo yëkkati seen bopp téye affaire bi jóg xeex ko xare ko waajal bu boobaa nag ñun peuple bi ñooy yor ñooy yor la loi de la force ñoom nag ñu daw dem ci force de la loi. déglu leen de jamono ji peuple baa ngi nii waa Pastef ñi ngi nii di wax ay waxu la loi la la force de la loi. ñi tëgg loolu taxaw di wax la force euh, force euh, la la loi de force ñoom Macky Sall kii naan damay jàll kii naan duma jàll kii naan danaa dem kii naan duma dem dinaa fi jàll ñoom Ousmane Sonko naa dinaa fi jàll Macky doo fi jàll dinaa fi jàll doo fi jàll lan moo fa lan moo fa des dóorante kur fañ ponkal bu taxaw ci benn kii ne doo jàll nga naan nii ma naan naa jàll doo jàll non loi bi nee na ma naa jàll ma ne non doo jàll bu max loi bi nee na ma heure bi war naa mën a dugg mu ne doo dugg muy lan ngay def da ngay dellu fële naan ko non loi bi da ngay dóorante moom fëgg ay dóorante kur feñ ay kaw a dëbbu ba ku gañee ku gañee mais affaire bi loolu la amatul leneen sinon nu ñuy gën a demee affaire bi di gën a ñàkk ñoom ñuy gën a accaparer l'espace di gën a préparer wu di gën a waajal seen bopp parce que ñoom fu ñu newoon ba léegi jógewuñ fa waa ji du dem du dem loolu lañ wax ñoom donc ñun war nañu war ñu mën a fekk ci jamono ji ñu nekk fii di wax ay waxu force de la loi mais ñun kañ lañ gëm loi boobu sax ak loi boobu bu doon day day day day gagné ban fan la Ousmane Sonko musa a def recours gagné. léegi maa ngi leen koy poser question depuis bu Ousmane Sonko juddoo ba léegi wax leen ma ban depuis Macky Sall toog fii ban la Ousmane Sonko mus am ndam ci loi bi ak justice bi. maa leen koy posé xam ma xaw ma tey lan moo tax ngeen bëgg a wéeru ci ay wax waxul lu ay konti max ak yu kenn xamul dama ne kañ la Ousmane Sonko musa def recours wala musa am ndam ci loi bi lan la musa dugal am ci gain de cause je vous écoute man ak yéen ñooy waxtaan comme ni ko waxee rek hmm? nawle daal fort de c'est seen nawle laa nag dama leen di poser question ñu am xam-xam nañ génn lan la Ousmane Sonko mus a dugal ci loi bi depuis bu mu juddoo ba léegi bu ñu ko dàqee impôt tamit ba léegi Macky Sall toog fi lan la Ousmane Sonko mus a dugal ci loi bi am ci ndam musul am amul ñëpp loolu la ñu wax amul kenn ku ma mun a génne lenn lu gën a ndaw lu Ousmane Sonko mus a dugal ci loi bi am ci ndam waaw kon tey la ci Ousmane Sonko di am ndam ni kan moo mun a xaar tey Ousmane Sonko am am am ndam ci moment bi nga xam ne jeex na ba pare. waa ji di dem xañ ko ko giiru dundam lu mu mus a dugal musu ko cay may ndam indil koy gàllankoor indil koy façon problème bu ne kooku heure bi lay toog di bàyyi Ousmane Sonko muy dem ci ay wax waxi ja waxi waxi loi yaakaar ngeen ni Ousmane Sonko bu muy dund nekk fii di dox duggul ci kaso duggul dara musul déposé lu mu am ndam tey la Ousmane Sonko di dugg ci ay kaso ay juge am mënu kurti kurti kurti kurti ba génne ko ci li nga xam ni taqewu ci laalewu ci muy viole bi sax dañ ko cee jàpp <laughs> waaye sama gars yi tamit waaye nañ sérieux waay dama ne même viol bii nga xam ne laalewu ci taqewu ci sax dañ ko cee taqal tëj waaw ku la mën a def lool loo laalewul sax mu taqal la ci ba tëj la ci ngay bëgg a loo nit yi encore ne ay waxu contumace ak ay loi ak ay règlement ak ay décharge ak ay mais sa ma ne leader boobu bàyyi leen ca caaxaan ñime leen ne waaye gars yi waajal leen seen bopp du ñu tere nag def lu ñu war a def mais waajal leen seen bopp waajal leen seen bopp taxaw leen temm ci ne kenn du naxasal candidature Ousmane waajal leen seen bopp waxtu waa ngi jot dee ci jàmm wala. dund ci jàmm wala dee ci ci ci ci ci ci xeex am ñàkk dund mbaa dee laaf bi cooki la ci yoonu ndam amba mbaa ñàkk la dund mbaa dee laaf bii cooki la ci yoonu ndam lekk rek moo fi des amul leneen parce que lii yëpp guddal jëli la wiiri wiiri la maa la ko wax tegal foofu sa maa ne gis nga lii ay konti mag ay kii mag sak ay dafa def décharge ak maa la waatal ci yàlla ku ñëw ku ñime na ñëw ñu ñu challenge ku ñime na ñëw ñu challenge man maa ne konti max ak décaissement ak ku ci yaakaar ni Ousmane ko am na ci ndam ñëwal ñu teg man ak yow Sénégal yépp seede nga teg loo am ci alal ma teg sama àdduna bu fekkee ni li ñuy wax ci ay compte max yii ak ay décaissement am nga ci ndam Sénégal yépp ma futti lépp lu ma yor ba ci silib jox la ku ñëme na ñëw ci ñi koy wax je kii konk ci Sénégal ku ñeme ni ñoom bu ñu yaakaaree ni loi dina leen may ndam man maa ne bu leen loi mayee ndam ci waxi contumace ci ay waxi décaissement ci ay waxi encaissement ci ay waxi kese nañ ko topp ci loi buñ ko topp ci mbedd bu ñu xeex ak moom nañ ko topp ci loi dama ne buñ ci amee ndam na ku ñeme na ñëw buñ ci amee ndam ma jox ko lépp lépp lu ma yor effacé wu ci internet bi barki alxuraan ku ñeme na ñëw je défie quiconque kan moo ñime jàmmaarloog man ne ma waaw ñoom Conté Max beeg li ñuy wax nii yëpp Ousmane Sonko day am ndam ci lool ci ay ci affaire juridique juridiquement si juridiction Ousmane Sonko da ci am ndam ma ne bu ci Ousmane Sonko amee ndam mu def neen kooyu neen vidéo leen wan leen ko ne mi ngi nii xool wax leer na de olof laay làkk làkk ma bambara si dama ne juridiquement compte max yi ñuy wax ay décaissement ki encaissement dama ne juridiquement bu ci Ousmane Sonko amee ndam ma def taatu neen tuunu neen kooy neen vidéo leen ko ne maa ngi nii xool leen na ñëpp bégee loolu leer na loolu kay leer na li ma wax leer na wolof bu leer la de waxuma Ousmane Sonko day dem wolof du dem man man maa gën a bëgg dem loolu lay ñaan yàlla di man kay dama ne leen dama ne leen bu fekkee ni ci ay mbirum loi lañ ngay wax ndam du fa am du fa am ndam mukk lu ma wax leer na de ah dama ne bu fekkee ci juridiction kese du fa am ndam ndax musu fa am ndam de du tey la fay amee ndam ils s'en foutent de la benn nit bu ñëw taxaw ñu jàpp Ousmane Sonko ci Conté Max ñëpp ne ah jàpp nañ ko Ousmane Sonko def décaissement ne mu ngi nii nangam. ministre de la justice génn na waaw jàppewuñ ko ci ñëwul joxe boppam waruñu ko ba jàpp ko te boobu ñoom ñoo koy garde <laughs> waaye sa waay c'est que c'est man dama bëgg a dof wala ñu may waxal ñoo feebar ku ñuy wër ci compte mag fam xam kër gu mu nekk mu am Sénégal justice mi ngi am ku ñuy wër ci compte mag te xam ne mu ngi ci kër gi ñu jàpp ko indi ko ci compte mag bi dugal ko këram di ko garder ñu jugé ne Conte-Max ñoom ñu koy garder ñoom ñu koy garder biir këram ban loi la Conte-Max mooy ku ñuy wër kuñ gisut mais ñoom ñoo ko téye jël ko si seen oto photo ko vidéo ko dugal ko këram wàcce ko dugal ko këram tëj ko karaj di ko garder loolu ba kan lañ kan moo fi mus si biir Conte-Max boobu gars yi di la garder dugal la sa kër mus na am kon justice amu fi waaye kan moo mun a toogaat fii di wax waxu si man est que ñooñu nit lañ tamit <laughs> man Sénégal nag am na ñu am problème mu cerveau de dama ne nit bu ñuy toppee compte max waa ji lay toppee compte max di la wër di la juger nekk ko fa moom moo lay garder sa kër moo toog sa biir kër di la garder moo la dugal sa kër di la garder di wax waxu compte max. moo tax comme loi amul seen premier ministre génn na leen eh Ousmane Sonko compte max boobu noonu ñëw. Euh, gisuñu ko jàppuñu ko ñu ngi koy doo ko jàpp mais beneen affaire lu ñu ko jàppee vol de portable donc lu ñu ko jàppee bokkul ak Conté Max bi parce que Conté Max euh, euh, ñëwul ñëwul boppam joxewul boppam livré wul boppam comme marchandise donc Conté Max boobu oh, kiiwul bu fekkoon dafa ñëw livré boppam Conté Max comme Conté Max mais di wax du n'importe quoi loo xam ne du loi du justice du règlement du dara mais sama gars yi soyons sérieux un peu waaye nañ yeewu boo leen bëggee nag ñi leen di raay mbelle dem leen <laughs> dem leen man day xàq bil xàq laa leen di wax lijjantiwuma lu leen neex ak leen naqari boo leen bëggee dem ci live raay mbele wala nit buy toog di wax ay waxu loi ak droit dem leen ba xam di ngeen ci am ndam dem leen toog foo xam ne ñu fay toog naa booy compte max loi 32 45 estimel ko nekk compte max bi bu ñu ko compte max ki ki ki max te ñu xam ne depuis Ousmane Sonko bu muy juddoo ba léegi Macky Sall di ko xeex loi musul am musu ñu ko jox ay droit am musul am droit moom mooy première nit bu ñu teg ci kër di ko garder mooy premier nit ci Sénégal bu ñu ne dafa corruption de jeunesse mooy premier nit ci Sénégal boo xam ni dañ ko dañ ko tëj di ko garder di wax waxu compte max mooy premier nit boo xam lu mu sibir amul politicien bu ko mos a sibir ci Sénégal mais ba léegi am na sénégalais yu dof toogaat di lire ay loi di wax ay waxu Conté Max di wax yi loi di wax yi ñee di eggal yi rek la def ñoom buñ nekkoon Conté Max ñu ne non non c'est définitif amul Conté Max ñi waxati ñu ñëw def seen benn génn seen benn lettre ne non euh, génne nañ ko ci liste électorale yi di signé ñiy waxati ñu ñëw ni seen journaux yi journaux yëpp bind Ousmane Sonko du bokk. Ousmane Sonko du bokk journée yëpp loolu la def defuñu si sax Ousmane Sonko fotum sax nekkatu ci journée yëpp génn lex Pastef lex Pastef bla bla bla yëpp mi ngi journée yëpp mu ngi nii ah ne Ousmane Sonko génne nañ ko ci liste électorale lépp ñoo ko ñii ñu ngi continuer seen processus di wax spec spec du du du plan B ñu ngi nii Ousmane Sonko sonkorisé raye des listes électorales donc ñii ñoom ñi ngi ci seen yoon léegi lu tax ñun ñu bëgg ñu nalaw a law ñi ngi ñu ngi déroulé seen plan ñi ngi nekk ci lu ñu nekk ñi ngi bindale seen lettre ñi ngi signé ñi ngi yónnee ñi ngi wax seen conférence de presse ñi ngi yónnee journaux yi ña ngay wax ñi nekk ci plateau yi di wax mais ñun ba léegi ñi ngi nekk di werante non day dem non du dem non kon ci max bi non del max bi non xoolal mooy max pro bi non max plus bi non kii oh, daf ko signé comme ay nit yu ragal la taxaw pour jàmmaarloo gars yi man des fois damay toog tii la ma ne mais ñii ñi ma ko sekkal nii lan la xanaa dañoo rocc seen fidi dañuy gis dëgg ji ne lànk bëgg ci dëgg seen tànk bëgg dégg ay kàcc kuy taxaw di la wax ay waxu non munu ne parce que compte match bi parce que loi bi parce que rek mais sooy arrêté leen loolu li Ousmane Macky Sall nekk ñun ñoo ci waroon nekk ñun ñoo waroon nekk ne la loi de la force foofu la ñu waroon taxawee Macky jamono ji dafa waroon nekk ci di daw ci loi bi di wax ni non ga yi naan eh day bokk di di jaay doole di ko gé day bokk mu naan non la loi Contre Max bi moom moo waroon wax lii ñun discours bu ñu yor moom moo ko waroon yor ñuy gësam di gën di fëgg këram bëgg bëgg ñu rey sanday génnal génnal képp bum bum bum mu noo xaar leen loi Contre Max bi la loi règlement bi non attends attends yi génn na Contre Max moom moo waroon yor loolu discours bu mu yor ñun ñoo ko waroon yor bu ñu yor moom moo ko waroon yor ñun ñoo waroon yor la force la loi de la force lañ waroon yor la loi de la force di ko ko imposer muy indi la force de la loi mais ñu dëpp mu mbir ñun ñu nekk di wax waxu ay loi wu Macky Sall Macky Sall sax référé wul ci ay loi am te moo ko créé moom moom ministre de la justice moom moom ministre de l'intérieur moo mooy teg procureur moom mooy teg doyen de juges moom mooy teg président conseil constitutionnel yëpp moo koy teg les sept singes yëpp moo koy teg ñun ñu waroon taxaw indi laa force de la la la force de la la la force ñu nekk fii di wax la les force de la loi te ñun ñëpp xam ne loi amul Sénégal te ñun ñëpp xam ne leader bi dañ ko jaay doole dañoo faqat ay droit am tëj ko ci kaso bi jaay ko doole donc foofu lañu waroon taxawee man loolu laay wax sénégalais yi dama ne bés bu jotee waajal leen seen bopp xëy na jotagul nag ñu génn ci ma dama ne waajal leen seen bopp. doo ñu am du ñu am ndam ci ay compte max du ñu am ndam ci loi du ñu am ndam ci benn règlement bu Macky tant que sàll mi ngi fii Ousmane Sonko ak ay nitam duñ ko fi am duñ mus a dem justice ba am ko fa. ngeen waajal seen bopp ngeen jóg ci seen bopp ngeen pare pour seen bopp loolu daal laay wax te loolu je le parle au nom de tous les sénégalais waxuma ko benn parti politique de waxuma ko Pastef je parle au nom de tous les sénégalais. dama ne les sénégalais yiñ bëgg a faqat seen i droit yiñ bëgg a seen bëgg-bëgg yiñ bëgg a seen rêve mu am plus de cent morts et des centaines de milliers de de blessés et des emprisonnés dama ne ngeen waajal seen bopp je parle aux sénégalais je parle pa ci parti politique dama je parle au romb naa parti politique bi dama ne yéen sénégalais yi yéen ñi xeexoon ba seen i njaboot dee ba seen i mbokk dee ci cent morts doomu aadama lañ suul. ci lank ne duñ jël Ousmane Sonko di ko suul ñu ñoom ñu suul leen ndax loolu ne duñu nangu ñu suul Ousmane Sonko duñu nangu ñu tëj Ousmane Sonko duñu nangu ñu naxasal Ousmane Sonko du ñu nangu ñu yàqal Ousmane Sonko élection yi ñu nangu ñu ne Ousmane Sonko dem président du doon président loolu moo tax y a eu cent morts y a eu des centaines de milliers de blessés graves y a eu des disparus y a eu des blessés y a eu des morts y a eu aussi des emprisonnés ñooñu ñëpp loolu dal leen lépp pour Ousmane Sonko dem ci élection yi la dama ne toog di xoolee Macky Sall di teg ay plan ba ñàkkal Ousmane Sonko pour mu bañ a dem ci élection yi mooy saaga nañ saaga nañ nit yi dee yi toroxal nañ nit yi dee yi ñàkkuloo nañ leen seen bakkan ci neen mooy ñiñ ci kaso yi trahir nañ leen mooy ñiñ tëj ci kaso yi war nañ leen mooy ñi gaañu nax nañ leen ndax dañoo waxoon nañ jóg xeex pour Ousmane Sonko dem ci élection yi donc leneen lu fi am dañoo mandé suñ carrière leneen lu fi am dañoo trahi suñ carrière leneen lu fi am lu ñu waxoon yëpp dañ ko defut dama ne yéen sénégalais yi lu ma leen di wax lii la te kenn du fexe ba du am dëgg jooju dama ne ngeen waajal seen bopp benn juridiction du may dëgg Ousmane ko ndem moo ko am ndem dafa am dëgg de parce que ñoom ñëpp boo leen waxee ñu ne amugul benn condamnation amugul benn condamnation la ñu wax de ñële jàpp ko ci compte max bi ne du fa jóge et pourtant barke alxuraan bu doon dëgg kese Ousmane Sonko day dem ci élection yi mais Sénégal dëgg doxu fa. loi doxu fa règlement doxu fa justice doxu fa code pénal doxu fa kon nag ngeen waajal seen bopp ngeen jóg ci seen bopp ngeen bañ ku leen nax ngeen bañ ku leen fen ngeen bañ ku leen lëjëbal parce que dafa bëri ci yéen ñoo xam ne dañuy sàkketoo Ousmane Sonko mais gëmuñu ko parce barki alxuraan ci jóg ci nalawal leen rek la ñuy jóg ci nalawal leen rek Ousmane Sonko dafa ñàkk ginnaaw ndax ñàkk ginnaaw weesuwul ñu jàpp leader ba tëj tas parti ba ñëpp ne tekk toog nga ay toog seen biir kër yi kooku ñàkk ginnaaw la ko am ginnaaw dëgg lii du am ku am ginnaaw dëgg dëgg dëgg lii du la dal dafa ñàkk ginnaaw lu ne defal na ko am nag mais pour nit taxaw sax jóg jëmmal boppam mu jaral ko dee dund di eggali troupe bi mais njaboot goo gis day am day am bu après bu paa bi dee am na ñoo xam ne mun nañ téye njaboot gi am na ñoo xam ne njaboot gi day tas am war na mun a am ay yeneen leader yuy taxaw chaque jour ñuy éliminer kii keneen ñëw éliminer kii keneen ñëw taxaw di jëmmal révolution bi ànd ak ñoom di leen won ay lépp di leen leeralal kaa leen ñu demee nii kaa leen ñu demee te duñ leen mën a téye parce que on n'arrête pas la mer avec ses loolu war na mun a am waruñu jàpp Ousmane Sonko rek mu am benn vide ni donc man moom je parle aux sénégalais dama ne dañoo amoon bëgg-bëgg ñun ñëpp dañ ne ya moo moo tax ñuy reyante nii moom ma fi bàyyi dama ne dañ ne ñun ñëpp a waxtaanoon avant kenn di dee ñun ñëpp a nekkoon ñu ne dañuy def tout pour jël Ousmane Sonko def ko président changer réew mi ku nekk jot ci li nga moom les hommes qu'il faut à la place qu'il faut Sénégal dox corruption jóge fi malversation jóge fi dérive autoritaire jóge fi ay délit financier jóge fi ay luubal alalu askan wi jóge fi ay lekk bàyyi ñeneen ñi dee jóge fi loolu lañ waxoon woon ñiy dem di tem di tem di tem di am ñu ñu rey ñu suul leen continuer di tem di tem ànd ak leader di tem di tem di dem di tem tem Macky Sall am ñu bëri ñu mu tëj ñiy tem di dem di dem di dem di dem mu jàpp leader ba tëj jàpp ñu ko wër tëj ñuy dem ba léegi waruñu taxaw waruñu taxaw naan ah xaaral ñu xool jant bi fii xaar ñu xool loi bi xaar ñu déedéet gis nga conviction bu ñu amoon début bi la ñu war a amaat ba léegi dara warul mun a tere Ousmane Sonko dem ci élection yi soit par la voie des urnes ou par la voie des armes soit moom day nangu Ousmane Sonko dem buñ ko gañee gañe nañ ko bu gañee gañe na mais day dem par la force doole mbaam amuñu benn kii yu ñuy def parce que xam nañ ni ñi Macky Sall faalewul loi faalewul règlement xamul xamul justice xamul démocratie jaay doole lay def te mi ngi continuer ci processus am kon nag dama ne ngeen waajal seen bopp man foofu laay wax ak yéen waajal leen seen bopp parce que aw alxuraan maa leen ko waatal fii billahi je défie quiconque ak ku nekk Pastef di jaay xam-xam ak képp ku fi nekk di wax waxu loi billahi wallahi wa taalahi doo leen am ndam ci loi bi doo leen am ndam ci justice doomu aadama bu bokk ci Ousmane Sonko du am loi ci justice du am loi ci ndam parce que xeex bi ñun ñu ngi koy gis boo bokkee moom lépp lañ lay def boo wanee sax sa bëgg-bëgg ci Ousmane Sonko bërki démb lañ fi jàpp photographe boo xam ni dafa wane ni dafa Pastef ci Ousmane Sonko ñu jàpp ko téye jaay ko doole muñ ci yuuxuwuloon du fa génn tey avocat wu Ousmane Sonko demoon na lijjanti benn benn lu mu tudd docteur Ousmane Sonko yi noonu di di ko faj mi ngi noonu ci hôpital ba moom docteur Ousmane Sonko bu doon faj Ousmane Sonko ci feebaram di nii nii nii mu nekk foofu noonu docteur boobu mi ngi moom mi ngi hôpital di dawal fële ñu ne waa ji jógee fële à sànni ko vum nar ko yóbbu àllaaxira moom moom ma nga tëdd ci wetu Ousmane Sonko moom tam mi ngi réanimation docteur bu doon faj Ousmane Sonko ca réanimation ma nga dëkk dëkk boobu dina nit dina taxaw di wax waxu wala droit mais il faut arrêter ça nañ bàyyi dañu foowee quoi ngir yàlla li la war suuli nit du la jox cër ba pare nga jàpp ko di ko bëgg a def goro bu di ko tardal addunaam da ngay jóg waajal sa bopp wala nga ne bugguma ñaari docteur yu koy faj kenn ki tey jii laa la wax plainte baa nii ci ay naxa saxandang ay waxi dof ñu ñu ko ci ay waxi naxa saxandang ci waxu mbiru mbiru un million te message yépp jox naa ko mu bind waa ji ne ko dakay koy ne ko jox ma sa email sa sa sa sa wéef sa numéro sa wéef sa tur wéef wéef day laaj tur ma dugalal ko ci waa ji ko non jëlal soxlawuma ko je peux vous montrer message yëpp soxla soxlawuma ko ba pare dem retourner dem porter plainte ko parce que xam ne ni c'est c'est un médecin de Ousmane Sonko ñu woo ko gendarmerie fois bu mu ñëwee génne na message na mais kii dama ko ko doon yónnee ba ne ko jox ma mu ne ma soxlawuma ko soxlawuma ko bëgguma un million yi yo may ko waa Pépinière je peux vous montrer les messages excusez-moi je vous montre le message dama ne déglu leen ma nitu Ousmane Sonko du mës sa am ndam devant la justice sénégalaise du fu mës a am ñu dem kii médecin Ousmane Sonko la médecin Ousmane Sonko Ousmane Cissé médecin Ousmane Sonko am ku mu waroon jox un million ci ay nitam pour wane ne nu ñuy toppee Ousmane Sonko am ku mu waroon jox un million ci ay nitam mu envoyé ko message message baa ngi nii mu nekk ko boy jox ma la ton vrai nom c'est El Hadj Mansour Diop ou Mansour Diop Mansour Diop ne ko ah, da nga gis sa bopp donc tu avais la somme tu faisais le malin d'accord je te l'offre maa la koy may message baa ngi nii si tu ne si tu ne veux pas envoie ça à la pépinière de Kaolack message baa ngi nii gis nga message loolu la ko borom ki ki mu yoreel loolu la ko wax ne ko da nga da ci gis sa bopp donc tu avais la somme léegi sax d'accord je te l'offre si tu ne veux pas envoie ça à la pépinière de Kaolack soxlawuma ko mais comme dégg na ni kooku. docteur Ousmane Sonko la nan la mujjee def dem porté ko plainte parce que am na ñu woo demal porté ko plainte demal porté ko plainte demal porté ko plainte ñu jëm ko tëj xool leen injustice boobu demal porté ko plainte ñu jëm ko tëj ñu woo ko mu ngi nii mi ngi nii convocation baa ngi nii convocation baa ngi nii Ousmane Cissé médecin gendarmerie de la Foire 25 9 2023 à partir de 11 heures demandez SB pour naa colonel la peut-être Faye se munir d'une pièce d'identité démb ma def ci live démb wax leen ne am na médecin Ousmane ko bu ñu woo convoqué nañ ko jóg leen ci seen bopp parce que gars yi ñoom éliminer képp ku bokk ak Ousmane Sonko jege Ousmane Sonko leen tax a jóg waa ji dégg ko parce que bu mu ko ko bëgg a yónnee wéef waa ji amul mu jéem waaji ji nangu ko jox turam bi mu yónnee ko ko Orange Money un million te pourtant bu yemoon ci message yi rek waru ko fay dara mais comme ñoom Macky Sall ñoo dégg loolu exploité ko pour mu dem porter ji plainte pour ñu jàpp benn benn euh, médecin wu Ousmane Sonko bu ñëpp ràññee ci médecin wu Ousmane Sonko mais démb yónnee na ko un million yi vite fait kooku jot ci moo tax tey justice bi dañoo mujjee sax am gàcce dañoo mujjee sax rus mu screenshot envoi d'argent bi screenshot message bi message bi yónnee ko inspecteur bu war da ko da ko xool di ree lépp ndax politique lépp ndax bugg a éliminer ay nitu Ousmane Sonko ci justice donc ma ne la justice bu dee justice la ñuy xaar ay recours ak fii la xar mi jaar ndam duñ ko am bu leen neexee nag ñu guddal jël wala ñu wiiri wiiri loolu nag moom yéen a moom seen bopp gis ngeen ni affaire bi wiiri wiiri la guddal jël la jaay xam-xam indi ay loi mën a réciter loi mën a réciter ay leçon de de de code pénal ay ca dem leen ci dem leen ñu réciter leen ko dem leen maa ngi leen di xaar ci boppu koñ bi dama ne da ngeen bëgg a dégg ay loi ay récitation ay droit ay récitation code pénal dem leen ñu réciter leen ko ngeen toog fu ngeen toog di xaar ba xam Macky Sall dina bàyyi benn yoon Ousmane ko dem ci juste ci ci ci ci ci élection yi ci ay loi ay démocratie ay justice ay affaire ok bu dee loolu ngeen gis tamit ñaar la yoon baa ngi nii la voie des urnes ou la voie des armes xeex bëgg bañ xeex jàmmaar jàmmaarloog waa ji reyante ba Ousmane Sonko dem munuñu ko fii kenn du fi am jàmm kenn du fi am salaam bu fekkee ni boobu arrangé wu leen da di jëm wuri recours ci ay loi d'accord moomuma leen juruma leen jënduma leen yilifuma leen xool leen bu leen ci neex yéen peuple sénégalais bi ngeen defee ko noonu salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa nekk leen ci jàmm peace and